yéen nga ne bi jóg na digg guddi ci mag ceeg Makka topp lëndëm gi dem Kaaba ga noonu day toroxlu ci yàlla fekk fa Jibril Jibril téye ci rido Kaaba gi di jooy yonent bi xàmme ko kay di ngay fii te doo agsi ci man mu ne ko léeg-léeg su fekkee ne ki ne circonstances yi dangereux na léeg-léeg ma roccee ko ñëw fi waaw yi lu ko waral mu ne ko tiit yàlla def na na mu def iblis moo doon suñu sang xam ngeen ñaata at la iblis jaamu yàlla juróom-ñetti fukki junne yi at waxuma la juróom-ñetti at de waxuma la juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti fukki junne yi at te asamaanu suuf foo sa tànk jaan matt la xalakku la dégg jamu la iblis su jot la benn yoon rek la mooy yàlla benn mooy ñu boole ko jaamu googu taxañ ko dóor ko ko ci kanam. dëgg ko awal ak moom foo xam yóbbuwaale su ma rëbb nag ak su ma tëkku ak du ma yee lu yu ma lay du yu dootul dog bay daa yumal xeex. Jibril tiit looloo ma tax a ma ñëw fii di jooy. Moustapha dem ca côté ba di jooy. jooy yàlla na tekk rek ba fajar ñu tàggoo kii naaw dem kii delluwaat xam nga leen yàlla dabaatal Maodo. Mm. seen nelaw yii ngeen yoroon di continuer leen ci ku ma wóolu gune nga waroon naa wax ne bi bokkul ci yow wala jibril matu ko waaye continuer leen ci noonu ngeen def yàlla mooy wax ci alquran karim laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llah wal yawm al axira wa zakara allaha kathiran sinaa saa sallam moom la yàlla def muy suñu référence référence bi nga xam ni nag yàlla neen mooy modèle exemplaire bi ñu war a suivre te modèle boobu ñun ko attesté

Euh, alamul arwaax méta histoire soo ko comprendre histoire bu am sens moo tax seen aliment rek laa tànn ni yàlla lim ñuy royloo ci Seydina Sall salaam lim ñuy royloo ñu nañ ko def di zikkar lu bari te yàlla dimbali ñu ba mandargawu ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif laa tànn mu ne ñu Seydina Sall salaam moo ko njëkkee wa kaana muxtajiban min qablu fi xujubin yusabbihu llaha fiha xayra muttasim mu ni kat yonent bi salaa salaam moo nekkoon ci xijaab yi xijaab bu nekk mu taxaw fa wax fa lam fay wax di fa sàbbal yàlla subhanahu wa taala sàbbaa yooyu na ñun ku nekk li nga xam ne am nga ci ndigal yaa ngi ko ci doxal yaa ngi ko ci def waaye ñu di waa Seydi Hadji Malick rasulullah moom fan la doon sàbbaa ak lan doon sàbbaa mu ni aqaama fi xijaabil qudrati isnay achara alfaham wa kaana zikru fihi subhana rabbi al ala njëkk na istijaabul xudra sàbbaa fa fukki junni at ak ñaar daan fa subhaana rabbil a'la suba xaama fii xijaabi azama bam pare mu déplacer wu ci xijaabu azama ñu ko wax modo fofu ñaata at la fa rasulullah def muy def na fa isna 10 alf am def na fa 11000 ans wala mu doon zikkar foofu daf daan wax fofu subhana alimi sirri wal khafi wax ndax fofu le mu ni dede suma makasa fi hijab al minnati bam fa jëlee nag dafa dem ci xijaabu xewal xijaabu minna ñaata at la fa def mu def na fa 10000 ans lan doon zikkar fofu mu na doon subhana rafi ala Moodo ndax fofu le mu ni dede dafa jógee fofu dem fi xijaabi rahmati dafa fa 9000 ans salatin dafa juróom-ñeenti junni at lan la doon zikkar foofu mu ne subhaana raufi rahimi ndax foofu la yem mu ne yemul foofu suma aqaama fii hijaabi sahaadati rasulullah salaa sallam ci béta histoire boobu ma lay def ci anamul arwa dafa dem ci xijaabu texe def fa huit mille ans lan doon zikkar foofu mu daf doon wax naan subhaana man huwa daimun la yazulu ndax foofu la yem mu ni déedéet si yemoon foofu bu baax ndax dafa dem fii hijaabil karaama ñaata la fa def mu ni sept mille ans lan doon zikkar foofu mu naan daf doon waxoo subhaana al aliyil xalimi ndax foofu la yem mu ni déedéet ba mu fa jógee dafa dem fii hijaabil manzilati def fa six mille ans akbar zikar mu ni fookat moom fa ne dafa subhana zil mulki l azimi ba mu fa jógee foofu la mu ni déedéet dafa ñëw fii hijaabul hidayati hijaabul hidaya maam Seydi Hajj Maalik nee na rasulullah def fa 5000 ans lan la fa doon zikar mu def subhana rabbil arshil azim foofu la mu ni déedéet dafa dem